ku la xam foofu Serigne Bara. mbokk jullit yi mbokk talibe yi ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides Serigne Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss Serigne Moustapha Matiley xalifa Serigne Bara Serigne Moulay Mbacké xalifa Serigne Balla Thioro Serigne Khadim Mbacké xalifa Serigne Cheikh Thioro comité de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoo am mbégte di leen digal 16e édition bi ñuy amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ca Cissas ren ñu tuddee ko Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro. ma jóg liggéeyal Sëriñ Tuuba te sàkku ngërëm ci barke Seex Mustafa ci Sëriñ Baara ma jóg liggéeyal Sëriñ Tuuba te sàkku ngërëm ci barke Seex Mustafa Mbàkke Sëriñ Baara ci kattanug Yàlla ak njool Màkka ko dar lay tàmbalee ci mbirum si Sidi Lamin Baara mooy turandoo xayru xalqulaayi sayyiduna salaa alayhi la si mooy turandoo xayru xalqulaayi sayyiduna salaa alayhi la si abda sëriñ Baara salaamaaleykum wa rahmatulah man euh, Babacar Mbaye moom Sëriñ Mbàkke Madina maa ngi fii Cheikh Bassirou moom Sëriñ Xaadim Awa Ba muy coordonnateur liggéey bi féete na ma fii ci baas bi ak taxaw liggéeykat yi lii moo ci sama cër maa ngi ci boobu ba tey ci ndigalam nag ñu ciy sant yàlla bu baax ndax boo visité tànt bi kon ku gis liggéey bu toll nii ku ko mës a teg bët état ku daan liggéey mbaa mbooloo moo xamante bi yàlla may na leen te ñu am yéene ak xol bu rëy mën ko caa def waaye musta doon jëfi kenn liggéey bi nag li muy rëy rëy rëy jëfi kenn la muy jëfi sëriñ Bassirou taxawal chapiteau bu tol nii nekk plus de 2000 mètres carrés euh, di ci def coono yi mu ciy def ak taxaw yi mu ciy def wax dëgg yàlla ñu sant ci yàlla bu baax a baax moom nag liggéeyal ko yomb na lool ndax li tax liggéeyal ko yomb mooy def ciy def yitte def ci yéene def ci bëgg euh, ndax boo xoolee bu ñëwee toog fii ci liggéey bi xool ouvrier yi liggéey dana fay million yu bare bare bare bare fay ko prestataire bi koy liggéeyal waaye saa yu toogee fii du ñibbi mukk te li mu daal woon ci poosam jeexul te ci ouvrier yi ak doomu aadama yi rek la koy jeexal du nekk ci liggéeyam dara woo naatoo gis dara muy manquement mu delluwaat ca prestataire bi ko defal ne ko defal leen ma léegi léegi lii waaye dina ko yàkkamti ba moom du ko du yónnee ci prestataire bi mooy làmbaat poosam def ko ci ay yoonu yoonu yoon bu ñëwee da gis pièce su ñu ne ma nga jam ñaajoo mu luye oto joxe ki ñu dem te ñi dem ba ñëw na leen neexal neexal goo xamante bi bëgg liggéeyam dox rek a tax ñi fiy liggéey ñëpp dana jëndi añ dana jëndi reer dana pay boisson dana pay lu mu doon lu rek ci man a motiver nit ki pour mu liggéeyal ko dana koy def moo tax muy mu neex a liggéeyal waaye liggéey bi toll nii ku ko am faaw nga motiver ñi ngay liggéey loolu ndax mooy tax loolu nag man comprendre naa ko da xam ne kii ki muy liggéey la bëgg moom la teg fu mu tegul kenn muy Cheikh Amadou mu Bara moom Xaadimu Rasuul am na ci moom cofeel goo xamante bi ak yéene joo xamante bi ginnaaw bi muy maamam jàppul sax mbokk ga la sëñ Fallou defoon jaay mbokkam nga jënd ko taalibe wóor na ma ne moom noonu la def ci jaay njuréelam gii ko jur baayam di caatum sëñ Cheikh Modou leen baara ah, muy sëñ Xaadim Awa Ba jur ko moom sëñ ba Bassirou Mbacke waaye wóor na ma ne njureel nga jaay na ko bu yàgg jënd ko taalibe ndax ni muy doxee ci taalibe rek la ko teg ñu koy sant bu baax a baax waaye dellu soit rek ci wax na liggéey bi fii ne boo na koy xool di ko évaluer a quatre-vingt-cinq pour cent pare na ndax li ci amoon solo mooy lii te daanaka pare nañ ko léegi lan moo ci des ñetti podium bi ñu war a teg podium boo xam ci dañuy teg pupitre bi ak podium boo xamante bi yéen journaliste yi ci ngeen di taxaw di liggéey ak podium boo xamante bi ren da ko cee dolli pour jàng gi ndax ren dafa privilégié bu baax a baax njàngum xasaayit daal di wax nag nañ ko defal podium bu rafet boo xamante bi ñuy jàng xasaayit ci leen teg ñuy jàngal ñuy jàng xasaayit sëñ Tuubaa yi ren mooy innovation bi nga xamante bi daana am ay jàng naka jekk waaye ren daf ko bëgg a yokkaat gën a gën Euh, focus ci njàng mi bu baax a baax taxaw ci def ci yitte bu baax a baax a baax lii ay innovation la kon yooyu ñetti podium yooyu bu pare li ci des mooy lal moquette yi rek bu ñu lalee moquette yi ba pare teg chaise yi li ci des mooy monte la climatisation ndax ay quatre centrales lañu fi yoo xamante ni ay armoire lañ ko dolli ngir barab bi ku fi dugg mu sedd guy guy guy guy guy incha allahu taala loolu mooy yéene ji ñetti écran géant ñoo fi ne fii au fond day am écran fii day am écran géant ñooy jàkkaarloo bi day am écran géant mooy ñetti écran géant yu mag boo demee ca salle VIP bi nga xamante ni kuy dugg fa ngay jaar dugg ci muy jaar jaarukaay kilifa yi écran géant fa euh, muy salon boo xamante ni euh, daanaka da koo waajal di ko def defar ko ba mu rafet waaye mu fa réfectoire boo xamante ni ku teel a ñëw di kilifa te mosagoo dara wala ubbi koogoo nga jaar fa ñu defar la ko ba mu jekk ba mel ni sa kër nga ne nga ndékkee fa doogu duggaat ci biir salle bi taxawaay yooyu yëpp musta désiré ci mooy pour def ko bu baax a baax amul benn at moo xamante ni du doon la koy defee kon loolu daanaka bu lii paree da ci des mooy defar salle salon VIP bi rek ak li ma la wax léegi rek mooy euh, gis nga tribune yëpp ñu ngi koy moquette gis nga ñu ngi koy décorer décorateur yaa ngi ci kon installation yi rek moo des ci kaw tribune yi ñu ngi koy installé bu ko defee ay chaise dañ ciy teg de différentes qualités nag mais yëpp chaise VIP lay doon installé ci suuf bu baax a baax a baax a baax a baax euh, taal climatisation yi lépp taak ay centrale la bu ko defee taal écran géant yi lii mooy li nga xamante bi mooy finition yi ci des rek kon bu bés bi dee samedi te tey ñuy samedi moom bu des une semaine jàppal ne fii ak deux jours yooyu ma la wax yëpp incha allahu taala dana pare li ci des kon mooy di ko saytu rek ndànk-ndànk ndax moom liggéeyam danul jeex waxtu bu sëmbee liggéey du jeex saa yu ñëwee danañ ma ndax loo defar lu mu baax baax bu xeeb na ko ci xolam nañ dolli rek lay wax nañ jolli nañ dolli dund mukk doy na te nañ jolli gi loo ko wax rek yem ko ci làmmiñ poosam lay làmm naa la nañ dolli di ko ci def loolu nag wax dëgg yàlla day ku neex a liggéeyal koo xamante bi dañuy sant ak di ko ñaanal yàlla ci barkeb sëñ Tuubaa bii mu def di ko liggéeyal maamam Cheikh Mame Leen Bara yàlla ci daje ngërëmal maamam day ca ngërëmal sëriñu ma muy Cheikhul Khadim Khadim Moussa dana ca ngërëmu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am ci ngërëmal sunu borom tabaaraka wa taala ñu ngi koy ñaan bu baax a baax a baax bu dee ku jëf am dara dana am dara ndax jëf na moom bu wér ñu ngi koy sant bu baax ak di ko ñaan yàlla lii daal en grosso modo mooy li nga xamante ni moo fi ne mooy li nga visité ni moom lañ fi nekk nii incha allah ñu ngi ci nag amuñu heure wàcc amuñu heure xëy waaw dañuy teel a xëy dañuy guddee wàcc lool ngir lan ban bis bee laaj loolu yittey bés bee laaj loolu boo tax ñu ngi ci bu baax a baax a baax ñu ngi woon yàlla ko sot ba mu ñëw te mooy sëriñ baara koo xam ni yàlla da daa dàkkul xelam lu mu wax mu far dajeeg dogalam bés bango seizième édition journée culturelle et religieuse Serigne Bara Mbacké samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre